jiital ci nuyoo bi euh, imaam bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ak chef de village bi euh, di nuyu sama nijaay bi Kaabu Sow di nuyu amical bi nga xamante ne moom ñu fi dajale di nuyu responsable yi fi daj euh, képp koo xamante ne rek wuy si nga Kaabu Sow ci bés bi di bés boo xam ne bésu sag la bés boo xam ne yàlla bëgg na ko yonent bëgg na ko ndax kenn ku nekk xam na ni période yi nga xamante ne fii lañ toll léegi eh, muy période boo xam ne eh, bu am difficulté la eh, ndax feebar moo ñu gën si ci suñu réew ak réew yi ñu wër yëpp sunu réew nag nekk réew boo xam ne ay jullit lañu te ay taalibe lañu ay nit ñuy jàppalante lañu loolu moo indi lii yëpp kon li ma ci war a wax yëpp maanaam wax dëgg yàlla ñu tàmbali wax nañu dañuy dañuy gërëm rek waa amical bi tàmbale ko ci seen président bi ak euh, képp koo xamante ne rek fu mu mën féete rek ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yéen ñëwoo leen commune Tivaouane ñàkk ngeen ko da ngeen ñëw pour yokk ko ndax da ngeen fi ñëw indi fi ak seen ambition ngeen fi indaal parce que euh, tey am na si ñoo xamante ne homme di tani ñoom ñooy fanaan ci ci ci tali bi ci yoon bi di kaaraange nit ñi yéen it ngeen ñëw xoolee foo xamante ne wax dëgg yàlla si beneen côté ngeen man a jàppee muy fi ñuy gàttandoo feebar bi ba yemoo leen ci loolu ngeen am ambition def eh, hôpital wala ak lépp loo xamante ne dañ ci mën a fajoo ci commune Thiankoye ñàkk ngeen am ambition boobu taxawal kon seen mébét boobu ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbali leen jàppale leen kattanal leen ba lépp sotti di wax ne ñu ngi ñuy ànd ak kaw soo daal suñu xol sedd na eh, monsieur le maire tamit xolam na ci yéen ndax boo leen ñëwee ci commune ngeen benn mbir def ko pour jàppale eh, commune bi jàppale ko ah kon moom ngeen jàppale président Macky Sall tamit loolu la bëgg képp koo xamante ni yaa ngi si gox nga yëngu ci dara ah yéen nag homme de terrain ngeen wàcce woon nañ leen lépp waaye seen baax moo tax di gërëm ñëpp yi sant ñëpp tamit di sant euh, major euh, sama xarit bi Baba Galle nga xam ne Thiès la jóge pour ñëw fekkee mbir mi ñu ngi sant ñëpp di gërëm presse bi nga xam te ne daje nañ fii muy euh, Tivaouane Peulh TV ak Dental TV di ñaan yàlla yàlla def jàmm jërë ngeen